tey ñu amone ben idée depuis le 2 mars bi nga xamé ni mbass mi dugg na fii ci Sénégal ci suñu réew ñu ni en tant que jeune nan lañu wara mëna def pour japp ci xeex bi parce que suñu xam-xam rek lañ mëna utiliser tay ndax amuñu moyen pour jënd ay produits yu dul jeex pour yobuko ko ci hôpitaux yeeg yooyu ñu ni donc dinañ utiliser li nga xamné mom lañ fi am pour participer ci mbass mi légui si lañ produire ben document maximum ay mbokk xaritu élève ingénieur bin paré ñu def ay moyen pour am benn financement parce que maa nekkoon chef de projet bi mais malheureusement amu si puisque am naa entreprise ma sama frère ñu waxtaan jël ay ressources euh, entreprise bi pour produire li nga xam ni moom ngeen gis nii. dispositif bi nag dafa nekk loo xamante ni lu am solo lu am ni la si mbas mi parce que ba fii may waxee ak yéen benn vaccin amuñu ko boo xamante ni mën na saafara saafara jile jàngoro kon li ñu si mën a muccal mooy ñu jël ay mesures di maytandiko te dispositif bi dañuy permettre ñu mën a maytandiku bu baax a baax a baax te duñu lor kenn. moo tax lii mën nañ koo teg fi nga xam ni mooy ci hôpitaux yi mën nañ ko teg ci buntu marché yi buntu jàkka yi buntu église yi fépp foo xamante ni nit ñi ngi fay daje mën nañ ko fa teg te mu leen di dimbali bu baax a baax ci jile jàngoro ba pare mu leen di permettre ñuy continuer seeni activités en même temps projet bi nag en réalité amuñu appui financière bi amuñu ko xamante ni yëkkati na xaalis pour jox ñu ko pour jàppale ñu ko si non amul ñun ñoo utiliser suñuy propre ak suñuy kii bon am nañ yeneen appui yu nag ñoo xamante ni ñi ngi jàppale ci koto xam-xam beeg yooyu ku ci mel ni suñ benn xarit suñ mag boo xamante ni mi ngi Chine muy Mangone Fall moom jàpp na ci bu baax a baax ak ñeneen ñi nga xam ni ñi ngi fi waaw maag sama frère bi daal en tout cas Libaas ñoo nekkoon du début à fin de ce projet pour taxawal lu ni danoo ñëw depuis mbass mi dugg fi ñu organiser wu ñu organiser wu pour produire des documents pour ñi nga xam ne dinañ mën a participer xeex ci mbas mi biñ ñu demee école ñu ñu organiser ay groupe whatsapp ma nekkoon chef projet bi ma def le tout ba produire document bu solide document boo xam ne su ma ko tegee fii même boo jàngul peut-être mën nga réaliser projet bi léegi bi ñu paree ñu ut ay financement mais amuñu. soo xoolee rek xam ne lii xaw na xaw na xaw na takku xaw na cher. mais n'empêche loolu xam naa ni du njëriñu jotaay bi jotaay bi c'est pour montrer que ni am na dispositif bu fi nekk te ay xal ay ndaw ñoo ko taxawal loolu mooy njëriñ bi je pense bu ñuy ñaan tamit xam nga nit ñi ñëw ñu gën a multiplier produit parce que ñu suñu objectif mooy rek ñu jàppale suñu réew pour mu gën a mën a suqali ko loolu rek mooy suñu objectif. tey jii bu ñu amee financement mën nañ produire lépp li nga xam ni. nit ñi soxla nañ ko ñu def ko balaa màggal loolu moom mën na nekk. ça dépend ci commande bi mën na durer maximum un mois mo maximum mën na durer un mois ça dépend ci commande bi am na yoo mën na durer une semaine tamit. am na matériel yoo xamante ni dañoo dem ba extérieur jënd ko fa daal koy indi mais am na matériel yoo xamante ni ñun ñoo koy utiliser suñu propre matériel après ñu programmer de telle sorte que lépp day automatique. parce que danoo boole mixer mën naa ne ñaari xam-xam parce que bi ñuy nekk ndaw ñun dañ daan. xëy di dem ci atelier di liggéey monte métallique di liggéey aluminium loolu bi ñu ko boolee ak outil yi nu am école bu ñu ko compensé day def loo xamante ni lu extraordinaire la. machine bi li muy njëkk a def boo ñëwee dalay permettre nga lax nga raxas sa loxo yi ba mu set gel ngay utiliser boo ñëwee sa automatique da ngay dégg sa loxo rek après mu désinfecter sa may yi nga raxas ko ba mu set boo paree nga mesurer sa température sa température bu normalee moom dina ko wax boo paree nga daal di doog a dugg doog a désinfecter sa yara sa yére yi nga sol loolu mooy dispositif bi. ñun message bi ni lancé président de la république moy mu gëna a ndawu Sénégalais. sénégalais yi surtout ñi nga xam ni ñi ngi ñi ngi entreprendre di jéem def dara parce que c'est très difficile parfois ñu am ay idée pour faire quelque chose té duñ am les moyens pour le faire lool dafa metti lool lool lool mais ñu ngi koy ñaan mu gëna japp ci mbir mi ñu gëna multiplier prototype yi partout au Sénégal pour mëna a xeex ji la jàngoro nga xamni sonal na aduna bi yépp